sallallahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari jur bu wér gërëm suñu wasila gërëm leen yéen ñi nga xamante ni saa sunu ne yéen a ngi fësal seen cofeel jëmale ko ci ñun doore ko ci maladie tëdd ci hôpitaux yeeg ñi weyaale seen i jàngoro ñu ñaanal leen yàlla fëgg seen bopp ñi caabi féete ginnaaw yàlla génne leen waaye waay dawlu yi ñu ñaanal leen yàlla atte leen ci yërmandeem jégal leen seeni i bakkaar kilifa diine fu ci waay mën a nekk rek ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la ñaanal gudd fan gu ànd ak wér yàlla bàyyi la ci kanamu njaboot gi waaye kilifa aada itam yàlla defal leen jàmm may leen wér may leen kattan liñ leen dénk yàlla nañ ca mën dara ba ëllëg bu ñu fi bàyyi ko nag bàyyi fi nettali bu rafet ndax euh, dama koy wax souvent rek nit ki fu mu toll sa jikko sa ginnaaw la ñu koy wax ku ko mën a dégg ne ay la yéwén mën naa ne yàlla na leen yàlla may ndam ci liñ leen dénk yàlla def jàmm ci réew mi def fi sutura xéewal def fi wér ak wér leen ndax lu dul wér rek wér a ko dàq kon yàlla yàlla may ñëpp wér may ñëpp taal may ñëpp kàttan rawatina jamonoy euh, màggal gi nga xamante ne moom la ñu nekk wax dëgg yàlla ñu nekk ci période safar dëkk bi yëpp tabarkàlla macha allah ku ne xam na ne Serigne Touba Xaadim Rasul moo xewle. kon na euh, dañ koy ñaan ci barkeep euh, weer wu tedd wii rek ak euh, jamono bi ñu toll yàlla na yàlla def jàmm ci Sénégal defal jàmm ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kër yi waaye tam njaboot gi tam yàlla sàmm leen aar leen. aaraale mboolem mbokk yi nga xamante ni tàmm nañu génn moo xam réewu Afrique la ñu nekk wala réew nit ku weex nañu rek ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di jàmm ñoom itam moo tax rek ñu génn moo xam góor nga moo xam jigéen nga yen bi diis lool nag nga wane ginnaaw wan njaboot gi ginnaaw dem daani sa doole ngir am loo xamante ni da koy indi sax njaboot yàlla na ko yàlla yombal. bu ko yàlla defee ba noppi yàlla doon seen jiglaay te yàlla sàmm leen ba ñu dellu si ci seenu njaboot ndax xorub tukkikat boo xar bu ne rek danga nga cay fekk bëgg a ñibbisi te it nag ku sañoon da ngay ñibbisi ki sa sagoos bopp yàlla na leen ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, ni ñu koy defee nag saa su ne rek xam ngeen ne euh, 2STV toujours au cœur des événement lay def euh, événement bu jot rek da ciy àndandoo ak yéen ndax kenn ku ci nekk da nga ci am wàll moo xam murit ba la Tidiane ba Laayeen Xaadir Ñaseen ñëpp dañu am wàll ci lii nga xamante ni mooy 2STV jullit bi chrétien bi ñëpp dañu ci am wàll jamonoy safar la ñu toll nag mm, incha allahu taala ci noonu lañ koy defee. ñu ànd ci ak ki nga xamante ni mooy ab Lahad Aw waroon na ànd nag ak Abdou Lahad Mbaye nga xamante ni sunu doom la sunu lépp la habit d'habitude ñuy ànd ak moom bu ñu sësee ci màggal gi ci ay émission waaye nag tey am loo xamante ni moo ko te xabar yegsiwul tey ci plateau bi euh, di jàmm rek nag ak salaam tabarkàlla macha allah ndax taaliba ndigal la ñu wax te ci ñoom ci ndigal la ñuy wéy euh, mu am yitte yu ko tënk lool safar yi jàllaa ñoo ci dëkk bi xam ngeen ne loolu rek mooy li nga xamante ni moo ko sabab waaye nag sañ naa ànd ak seexam doomu ndeyam léppam muy Abdoulahat Aw ñu fas yéene seq waxtaan euh, ci li nga xamante ni rek mooy safar 18 safar waxtaanee jëmm ju tedd jooju nga xamante ni mooy xaadim rasool waaye itam ànd itam ak Bekaay Njaay mi ñu demaloon Touba macha allah day dugal loxoom ci liggéeyu kër gi euh, defal ñu fa reportage incha allah dinañ ci ñëw ci wàccaayu màggal gi yan comportement lañ fa bëgg naka la bëgg a doxalee ci màggal gi ak gan ñi naka lañ leen di xaaree yooyu yëpp incha allah di ngeen ko am ci biir seen émission kër gi waaye nag du ci wet ndax damay ànd ak yéen ci 88 628 14 13 wala 00 221 33 841 23 34 sëñ Laat maa ngi lay nuyu di la ziar. waaleykum salaam wa rahmatulah Sane Mbaye bisimilah rahmaani rahim. sadi mm. lisaani nawir janaani safi amaani wasid bara'i. ñoo ngi lay nuyu Sone Mbaye. ñu ngi lay fay. ginnaaw bu nu sant yàlla nag. jullit ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Seexul Xadiim. Mm-hmm, ak ñaanal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha xalifatul am di taayifati muridiya yàlla na fi yàgg lool. amiin amiin te mu ànd ak wér. amiin waay di ko ñaanal sëñ Modou Moussa Fall Modou Mbenda. Mm-hmm. xalifa général des Baye Fall des Baye Fall. ñaanal sëriñ Cheikh Jëmb Fall yàlla yàlla yokki leeram. allahumma amiin te taas barkeem. amiin amiin mboolem képp koo xam ne rek yaa ngi bàyyi xel 2STV. jël nuyoo bi teg ko sa loxo. nga mhm. jotal na ko ci ñëpp. incha allah dinañ ko jot te mbokk yi yaakaar naa ni ñoom ñëpp tam seen xol sedd na ci teewaay bi nga xamante ni teewaat ngeen ko fi ndax defoon nañ ko daaw fekkee déwén ngeen di sama njaboot nag. macha allah di yëngu ci lu am solo euh, te it nag kenn gënu leen ci yey euh, ci plateau bi loolu moo tax rek ñu delloo siwaat leen fas yéene àndaat ak yéen waxtaanee 18 euh, safar. d'abord 18 safar nit ñaa ngi xale sax dañuy dégg safar 18 safar lan lay tekki nga déchiffrer ñu ko ak sëñ Abdoulaye. 18 safar. 18. Hmm. mooy fukki fan ak juróom-ñett. mooy fukki fan ak juróom-ñett. ci weeru safar. ci weeru safar. Hmm. weer wi. Hmm. moo tudd safar. safar kon weer wi. fukki fan ak juróom-ñett yi sëñ Tuubaa génnoon nag. ngir liggéeyal lislaam moo tombé fukki fan ak juróom-ñett. ak juróom-ñett. ci weer wi safar. muy xaritu yow ma sabti. saamina asar. li xidmatil muxtaari fii sëri safar. mooy génn gi mu génnoon. Mhm. tombeeg bisu samedi. Mhm. kon émission bi moom baati na cee ne. ah génn ga bisub samedi la tombé bisub samedi la tombé loolu émission bi doon samedi. émission bi doon samedi eh, waaye ndaw. waaw émission bi doon na samedi sëñ Tuubaa bisub samedi la génnoon. sant rek sant rek la génnoon. ndeysaan liggéey li woon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. bis boobu nag la ni. Mm. bu jotee. Mm. nan ma sant la yàlla. ak sa moo waral màggal Tuubaa gi. Mm-hmm. nit ñi nag dañuy am ndam di sant. Mm-hmm. waaye sëñ li ko may ndam li loolu sant. li ko may ndam li lay sant. waaw moom daa si waaw yàlla defal ko ndam. Mm-hmm. te ko am ndam da sant. Mm-hmm. waaye moom nee na li ma may ndam li loolu laay sant. mooy génn gi mu génnoon liggéeyal lislaam waaw dañuy waxtoo bu jotee nan ma ko santalee yàlla. d'accord loolu la waral màggal Tuuba. Mm-hmm. kon génn ga mu génnoon. lan ni nan ko santalee yàlla bu waxtoo jotee. waaye waxul ni waxtu bi mu amee ndam nan ko santalee ndam li waaye li ma may ndam li loolu laay sant. donc comme ni koy defee dem ñibbi ñëw feetu defu ko. déedéet moom feet gi da koo def ci dem gi nga xamante ni dem na ko ndax dem gi moo indi feet bi moo indi feet gi d'accord bu du wan a demam gii waaw wolof ak nasaraanu mhm. te kon billaahi ñëpp dem niiraan si Musaa Ka ko wax mhm. ndax bi mu génn di wuti di liggéeyal islaam boobu lislaam daa tumranke ci réew mi mhm. booba ku mokkal alxuraan sax mm. da koy man ba noppi mm. wañeeku di taaxuraane téere bi ndax ñàkk xam valeur am mm, lislaam di joo yëkkat tubaab bi maîtriser réew mi dëgg la kenn amatul xastu li ñu fépp mel ni làmbaay ci caaxaan. Mhm. sëñ ñaan ci barkeb jiili. Mhm. ne may safiyon kulli xiili may xaadim rasul fii sudaani maa war ram xarnu bi ani niiraani. Mhm. daan ne suuf leen ko jóor ma ko yàlla bakkan bi bindu ma ko ba xam fa fan wi toll waaye jëmm ji am naa jomb loo ma teg ma dégg ko sëñ daa yanu yanu waaleel nu. daa yanu. yanu waaleel nu. waaye nag bi mu yennee yan wi. lan la yenn waale ñun ñëpp. lépp neex. waaw sëñ daa yanu yanu mm-hmm. waaleel nu mm-hmm. yéen nekku yéen nekk waale nu ñëpp mu oyof ci ñun mu oyof ci ñun mm-hmm. ndax la naroon a dis ñëpp lan nan ma ko teg ndax yan ba nu yanoon xutba ya ak lab daal ya te attanuñu ko sëriñ Bamba ko yanu ba na favroo gaaña mooy nattu yi yàlla nit yàlla bu mu ko mës a wan da nga naan lii dara jarlu ma ko ndax sa ngëm yàlla mën na caa rikkiku sëñ baa nag ne yàlla man teg ma ko ngir lislaam am dam est gudd fan gi moom suñu borom a ko yor. gudd fan gi suñu borom a ko yor. waaye am naa jëmm ak loo ma teg ma dékku. ma dékku ko. yàlla ni ko nag may naa la ci sa jëmm ak sa ruu lu benn jëmm ak ruu amut. ahtaani allahu mhm. fi ruuxi wa fi badani maa laa yura si waa zaati bilaa laa tuhami li ma am ci sama jëmm ak sama ruu min def amu ko suñu waa ko wax. waaye bis mu génnee nag mbàkke baar yi. waaw ngir jóg liggéeyal lislaam. Mhm. looloo waral màggal gi. looloo waral màggal gi. ndax génn googu ma génnoon. ndax àjjuma ja mm-hmm. ca la dugg ci jàkk ji ba génn mm. yàlla ni ko biskin tey amatoo ndigal dugg ci sa biir kër mm. bagage yi fekk ko ci pénc bi bi ko bagage fekkee ci pénc mi mu woolu fas mu ni nan ma yor fas wi mu daan war xawnullaahi la tuddoon fas wi mu daan war mm-hmm. ñi indil ko fas wi sëñ Tuubaa war ko mm-hmm. fas wi daw ay jéego suñu borom ni ko jotaan nga ndigal fi ngay fanaan loola waral mu départ bi samedi waaye ci àjjuma ja la jekkoon donc bi mu génnee ci jàkka ji duggaatul këram. duggaatul këram. bagaas yëpp ci penc ma la ko fekk ci penc ma la ko fekk. mu fanaanaat ci penc ma mu fanaan fa ba ci penc ma ba ba mu xëyee nag. tubaab di ko jël si woon. waaw moom moo leen doon yee ni leen jóg leen dem. te dañoo ñëwoon jël si ko. jël si ko di jël si nit mu ñemee fa mu jëm mooy sëñ Touba. la moom la ñuy àndee ak yéen Serigne Abdou Lahad la ñu àndal Euh, sëñ Abdou Lahad Aw macha allah fa tabarakallahu nekk koo xamante ni kenn dootu ko présenté euh, ci média yi ci li muy waxtaanee ci yoonu Serigne Touba lépp nag jëm ci 18 safar diggante màggal ak safar ñaata fan la. diggante màggal gi. fukki fan ak juróom-ñett gi. ak premier safar. waaw fukki fan la ak juróom-ñaar bët set di fukki fan ak juróom-ñett. di fukki fan ak juróom-ñett 18 jours. Ah. yoo xamante ni ñu ngi koy def ay manifestation léegi dafa am bu bees bu ci xew hmm. ñëpp dañuy safar maa ngi nuyu bu baax a baax Ndeye Fall bi nga xamante ni ma nga nekk fële Yoff APEXI 2 tabaarkàlla macha allah xale la waaye démb li mu safar euh, tukkal na àdduna Ndeye yal na la Serigne Touba fayal boppam fayal ñu ñoom nday mbay ak ñoom Ndeye Ramaloo ñëpp ñu ngi la doon bàyyi xel macha allah bâche boo xamante ni huit heures ki suba ba daanaka minuit ci guddi euh, euh, jëmmal liggéeyub Serigne Touba rek lañ fa doon def te ngay xale bu ndaw léegi méthode boobu ñu ci jël bu bees boobu bu safar jotee ñu di ko safar ci koñ yi ba màggal des deux jours nit ñi dem yeggalee ji ko fa loolu naka ngeen koy jàngatee ak lan moo inspiré nit ñi ci loolu. xanaa gore. gore gore. Serigne Touba ndam li mu am. Mm. ba noppi ni nan ma santale yàlla ci fukki fan yi ak juróom-ñett. Mm. ñun taalibe ñu gore. ne ko mm. benn fan ak safar. ba fukki fan yi ak juróom-ñaar dan lay sant fukki fan yi ak juróom-ñett ñu santale la yàlla xanaa mérité na ko nag. d'accord moom benn fan bala waxoon. benn fan la waxoon dolli ci fukk ak juróom-ñaar ñun ñu jël fukki fan yaa juróom-ñaar jox ko moom sëñ Touba benn fanu safar ba fukki fan yaa juróom-ñaar ñun sëñ Touba la sant fukki fan yaa juróom-ñett nag ñu santale ko suñu borom. lu waral loolu. xam nga lu ko waral. waaw mooy li ma la wax sëñ Touba génn gi mu génn. waaw l'islam la génn li woon. Mhm. kon bu indi leen ndam l'islam delloowaat lépp yàlla. Mhm. man lam yaskuri naas laa yaskurullah ku santul nit doo sant yàlla. dëgg la te ndam lii l'islam am. sëñ mhm. Touba ko jëf ba noppi delloo lépp yàlla ñun nag ay taalibeem ni ko. benn fanu safar ba fukki fan juróom ñaar. danañ la sant ba ñëpp xam ni ndam li yàllaa la ko jox waaye yaa ko wuti woon. dafa mel ni mbokk ngi ci ligne bi ñu dimbali ko ba noppi. yàllaa ko jox waaye moo ko sàkk lu woon boo sababluwul doo am dara. doo am dara. rawatina ñu tedd jooju salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna si na nga maa ngi sant yàlla bu baax tey ziar. lu bari. nanu kazaalika. man la Njuga Kan di wootee Tiwaawoon. Ibra Kan. Njuga Njuga waaw Abdoulaye Aw laa soxla. waaw mi ngi lay dégg Abdoulaye Atta ngi lay dégg kan. si Abdoulaye mi ngi lay ziar lu bari. sëñ kan maa ngi lay delloo ziar bu baax. nekk coono yi. mi ngi lay ziar bu baax a baax. jërëjëf sëñ Ndiouga. ñu ngi rafetlu émission bu baax. jërëjëf kan. di kontaan ci yow di la ñaana suñu borom. amiin amiin kan. yal na sëñ Tuubaa gën a taxaw. amiin amiin amiin amiin. ci dara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam amiin. si waati awoon ñëpp ngi lay seetaan dëgg. jërëjëf kan. ñu xel bu baax a baax. jërëjëf kan. waa kay baax na jërëjëf. kan. kontaan nañu ñoo gën a kontaan ci yéen. jërëjëf jërëjëf. buntu baa ngi noonu def leen ni moom ngeen wootee su ko defee rek ngeen jaar euh, ci émission bi indi seen xalaat ñu nuyu waa Tiwaawan yëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm sama goro ba kenn mbaw maali biram jigéen yàlla na ko yàlla defal jàmm pis yaa ngi ne gàññ lépp a ngi ne gàññ macha allah fa tabarakallahu tey seetaanul doomam benn yoon dafa sëylu moom. Euh, kon kenn maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu waa Tamba yëpp di nuyu sëñ macha allah euh, dëkk Tiwaawan xam nga sëñ Diallo. la sëñ Babacar Diallo. mbaa xam nga lu ma bokkak moom. ndeysaan loo leen bokk yaayam ak sama yaay bokk benn baay. waaw moom bu leen jur sëñ la. bëgg na sëñ Saliou bëgg na ay mbokkam. ndeysaan sëñ Diallo mi ngi taxaw ay mbokkam mi ngi leen di jàppale. Euh, yorul li mu yor rek di ko xëllantoo ay mbokkam mooy xam néegu ndeyam nag wala néegu baayam. sëñ Diallo ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla defal jàmm li muy liggéey ci yoonu Serigne Touba di koy liggéey ci isbu tarxiya yi yàlla na ko sunu borom fay. Euh, Tiwaawoon nga dëkk. Tiwaawoon laa dëkk waaw. noo def ba jàngee lii yëpp xam-xam bi xanaa sama baay bi ma jur. waaw daara ji ci biir kër gi la ne. mu indi sëriñu daara bu tudd sëñ Saliou si. Mhm. moo ma jàngal alxuraan sama biir kër baay. Mhm. man lu nekk ci man rek. Mhm. tiyaawoon googu laa ko amee. mais kon am na cohabitation maanaam nekkin boo xamante ni rafet na diggante murit ak tiijaan ci biir Tiwaawan. waaw xam nga diggante boobu daa musta ñaaw. ci rafet la dëkk. ndax sëñ Tuubaa ak El Hadj Malick. du Real Barça. du Real. Barça diggante boobu nekkul classico ñoom ñaari bokk équipe. Mm. seen entraîneur di rasulillahi. sallallahu alayhi wa sallam nit nag boo bokkee moom équipe da nga naan yàlla nan gagné. da nga naan yàlla nan gagné. te nga gagné gi du dara lu dul am ngërëmal yàlla ci liggéey bi ñuy liggéeyal rasulullah. waaw sëñ Tuubaa Seydi Hadji Malick ñoo bokk benn objectif mooy nit ñi baax rek. ak ça. ñoo bokk leen leen tax a jóg mooy na nit ñi baax. xam nga c'est une question boo xamante ni dama ko posé pour nit ñi xam ko xale yi. la ñu xamal ko seen bopp. ndeysaan xam ne li nga wax ne Serigne Touba ak El Hadj Malick du Real ak Barça. déedéet du classico moom. Hmm. déedéet du ñaari jigéen ñi ñu bokk benn jëkkër demeewul noonu. ñoom ñaar danoo bokk kenn ku leen tax a jog mooy li Seydi Hadji Malick wax Sëñ Tuubaa wax ko hmm. aturku kullaha ila rahmani hmm. musilatun muslikatun yaa jaani Seydi si Malick nee na tarixa yëpp ci yàlla la jëm moo xam bu tiijaan ba bu xaadir ba bu ñaseen ba bu ñëpp ci yàlla rek la jëm sëñ tubaa moom feelu ko ni ko fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yahida sawaun intama ila al jaylaani aw intama li ahmad tijaani aw li siwahuma min al aqtaabi iskulum xat ala sawaabi sëñ tubaa nee na wird bu nit jàpp wird ba àggale la ci yàlla moo xam wirdu Cheikh Abdou Qadir Jeylaani moo xam wirdu Cheikh na Tidiane Sirif wala beneen wird boo xam ne ni ki la ko jox nitu yàlla la boo jàppee mu la ci yàlla te looloo ko ñor. looloo ko ñor mooy. nga ci yàlla. ñëpp egg ci yàlla. waaw mooy objectif bi. mooy teg mooy tekki baatu muridulaahi. kon nag ma dem ci yàlla. moo tax ko ko doon doon nga lépp mais ku génn ci murid génn nga ci lislaam mooy kon nag ma dem ci yàlla. moom la muridulaahi di di di di tekki. waaw mooy koo xam ne ngërëmal yàlla rek lay sàkku. Hmm. isin muridulaahi ridu abada xayru dar rahmaani haysu xasada ab murid dëgg mooy koo xam ne foo ko fekk ngërëmal yàlla rek la bëgg mooy lépp looy def da nga koy seedeel yàlla ndax yàlla moo yor fay te ku mu fay nga kontaan. te ku mu fay nga bëgg. 88 la 628 14 13 Aristide sama réalisateur bu baax bii macha allah am yar am teggin xam ne rek mag lay liggéeyal day ñëw di laaj élément yeeg yëpp nañu kaleel élément bi nga xamante ni jëlee woon nañ ko Touba su ko defee rek euh, dinañ ci ñëw léegi après question bi nga xamante ni moom lay posé euh, kii di euh, Serigne Abdou Lahad li nga xamante ni moom la Xaadim Rasool jàngal ndaw ñi murit la war a mel. murit na mu war a mel. Hmm. mooy ne jullit àqan war a mel. Hmm. ni murit war a mel. waaw mooy ne jullit àqan war a mel. sëñ Touba. Hmm. soful. soful déedéet. dinaa ci ñëw nga wax lu tax soful ak lu waral baat boobu mbokk asalaamaaleykum allo. waaw ça va. ça va ngi sant bu baax alhamdulilah. ñu ngi lay ziar sëñ bi tur bi naka la fooy woote. waaw Ibrahima Diouf maa ngi wootee Gambie. Ibrahima Diouf depuis Gambie. depuis Gambie waaw maa ngi. toog jaano yow. ayca Ibrahima yow rek la ñuy déglu ñu ngi nuyu waa Gambie yëpp. ma man dama kontaan dama nekk tiijaan ma nekk Layen ma nekk Murit man kenn. dëgg la ndeysaan. man kenn. waaw. am nga fu la waaw man kenn. nekk Tidiane nekk Murit. Mhm. xasaayit moom la am ci suma mobile bi la mu ku ma woo xasaayit nga am. ndeysaan. kontaan naa kontaan ni kontaan bu baax a baax ay ayca safar ci biir 2STV seen émission kër gi spécial màggal noonu lañ koy defee incha allahu taala ba màggal gi dara du leen ci ump 88 la 628 14 13 may nuyu bu baax a baax yaay ministère ma foofu ci diwaanu Gàmbi di ko ñaanal liggéey bi mu sóobu yàlla na ko yàlla yeggaleeg jàmm ak salaam te yàlla may ko ci ndam borom këram bi ko dëddu itam yàlla na xippee aljana yàlla na àllaaxira doon na flaayam ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar bu set si ma itam maa ngi koy nuyu bu baax di ko kontaane di rafetlu bu baax teewaay bi nga xamante ni teewoon na ko eh, ci ñun ay ci buntu baa ngi noonu ngeen mën a wéy di ci jaar Serigne Touba soful. sof mooy maanaam fekk lu ñu door nga yeggale ko. waaw kay. maanaam ñambaas. ñambaas. jeex na ñeen ñi seen olof xóotul. ñi seen olof xóotul. waaw. waaye daa yeesal. daa yeesal. mooy li fi newoon. Mm. la yeesal. ci naka. lil Moustapha nawaytu may jaddidu sunnatuhul ni Ahmad. mébétub rasulillahi la sëñ tubaa ñëw ngir mottali mm-hmm. ndax lislaam gi fi la ko fekk mm. waaye ban xamee ban demee ba xamatoon valeur lislaam mm-hmm. sëñ tubaa wanaat na lii mooy lislaam mm-hmm. lan mooy lislaam nag yëg ni yàlla danoo sàkk ngir ñu jaamu ko moom nag mu ñëw tuddee boppam abdullahi wa qadimi rasulihi jaamub yàlla liggéeykatu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kenn amul ci moom cër loolu dong ko ñor. abdullahi wa xadima rasuli foofu lay baagante. durant toute sa vie. jaamu yàlla liggéey rasulillahi ku koy wër ci ñaar yooyu nga koy wër abdullahi wa xadima rasuli jaamu yàlla liggéey kat rasulillahi newul feneen. lu ne lu ne la sëñ Tuubaa nga ca lu dul abdullahi wa xadima rasuli dañ ko koo créel moom jaamu yàlla liggéey kat rasulillahi. maami sëñ laat bi sëñ Abdou Xaadar. jaamu gi mu doon jaamu yàlla moo ko jaral. Mhm. tubaab yi bi ne ko dana la leen foo leen ma yóbbu te yàlla nekk fari mënoo loolu dara Mm-hmm. te yàllaa ngi fépp. te yàllaa ngi fépp. kon duñ ko mënal dara kon du loolu ma mana dara. Mm-hmm. ba noppi nag jóg di liggéey lislaam mm-hmm. bi mu jógee dem di liggéey lislaam nee na mbooleem malaaka yi xee xare woon ale badar danoo ànd ak man sëñ Tuubaa assiru ma al abraar xiina assiru wa zanna al ida ani onaaka assiru nee na tubaab bi danoo jàpp ni seen prisonnier la te lan jàpp amut daa jaayante yàlla ngir dem liggéey li lislaam ak xeetu rasulillahi sababu xaybati an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna saafihan li qawmi wa an akuna qaadiman fi dawmi looloo waral dem ji. Mm. dem ji li ko waral. wax nañu ko. mooy. yàlla na ma yëkkati sama daraja. Mm. yàlla bëgg ma ram sama ñooñ. Mm. yàlla bëgg ma am ci turu xaadimu rasul lii mooy mission bi. kon du yomb. déedéet waaye moom xamoon na ni du yomb. ndax yàlla li mu yor bala la koo jaay da nga joxe sa bopp joxe sa alal te Sëñ Tuubaa jox na boppam yàlla. ndax bi téere Masaalikul Jinaan bii nga xam ne moom lañ tuddee jumaay Masaalikul Jinaan gii Sëñ Tuubaa bi mu koy bind fukki at juróom benn la am 16 ans 16 ans la bi mu bind Masaalik waaye ci boobu la gëm ni yàlla mooy maye mm. te lu nit mës a am lu mu réerée yàlla ko jox kon mm. su ma gëmee yàlla yàlla mën na ma koo jox daan ni balaa taw day wis wisal waaye li tooyal gàncaxi nag mm. mooy taw mm-hmm. falaa tuxassis fadla rabbi xad xala bii zi taqaddumin faqat fa taj xala fa tallu xad yabdu amaamal wabali waaye fal fadlu lil waabili laa di talli nee na. balaa taw. wis wi sa jiitu. waaye gàncax gi moom taw a koy tooyal. loolu xam lu mu si digtale mooy yàlla su borom mi nga xam ni. moo indi wis wi sal denc na taw. ku ko fa xaar gis fekk ko ku fa xaar gis ko fa. Mm. waaye pas-pas boobu nag la am. xam ni yàlla ku ko gi gën ci moom mooy ki ko gën a ragal. Mm. moom mu jël ak mu jox ko yàlla xam ni jamono joo ragalee yàlla lu yàlla bindalee ragal. waaye boo ñemee yàlla. waaw lu yàlla bindalee ñeme. ndax moo tax ragalam yàlla ak joxe léppam. Mhm. xam nga Sëñ Tuubaa daa jox yàlla ba joxe lu ko kenn mës jox. mooy intention sax yàlla la ko joxul mooy yéene. yéene loxo dëra yi. Mm. sama yéene. Mm. naa ko. waa ilmi mm. sama xam bii joxe naa ko. wa ruuxi sama ruu joxe naa ko. joxe naa ko wa jismi sama yàpp yaram joxe naa ko mu ne wa kulli sama lépp daal bilaa sukkulin sama dara jàddut lépp jox naa ko yàlla. maami sëñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaa bu Serigne Fallou Mbacke ñu ngi koy ziar bu baax a baax ko ñaanal moom itam yàlla na ko yàlla dëgëral. dëgëral ki nga xamante ni mooy sëñ laat bu sëñ Abdou Khader wax naa leen ko sama buntu ci kër ga moom la soxna ñanga soxnaam jamono bii ñoom ñëpp ñu ngi waajal tabarkàlla macha allah màggal gi yàlla nañ ci dugg ak bisimilahi rahmaani rahim génn ci ak alhamdulilahi rabil alamin waaye di nuyu bu baax a baax Haji Mourtada Guèye di sët ci Cheikh Adama Guèye nga xamante ni moom lu mu laal a gën lu mu laalul Haji Mourtada maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar waxoon naa la ko la ca maam sëta koy jël la ca euh, Cheikh Adama Guèye jël nga ko ba mu mat sëkk kon yàlla na yàlla defal la jàmm Euh, dañuy teg foofu loxo bi wala dama lay dolli beneen laaj. waaye wala laaj bi nga laaj. waaw ma dolli la ci dara man. ayca bisimilah. mooy ndaw ñi tax nga neex ma. xam nga ndaw ñi. waaw sëñ Tuubaa dina leen ay téere. ay téere sëñ Tuubaa téere ndaw. waaw. bind téere waxambaane. Ah. am na tasawdu si xaar am tasawdu subaan. ban moo ci téere ndaw ñi. tasawdu si xaar. ban moo ci téere waxambaane. tasawdu subaan. lu waral ñaari téere yooyu. xam lu waral loolu. waaw ndaw li. waaw daa am lu ko war. Hmm. waxambaane bi am lu ko war. xam nga kii waxambaane day am responsabilité. waaw waaye ndaw bi amagul responsabilité. waaye bu sa ndaw jékkul nag boo nekkee waxambaane doo am responsabilité doo ko mën a téye moo tax mu ne woon yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu anil huda wa bil ulumi staxilu fastaxilu bil xifzi wa tilaawa wajtanibu majalisa saqaawa jeunesse bu teg fii sa tànk sag mag doo doo sonn. doo échec moo tax mu yow ndaw mi. Hmm. bul soxla lu xam-xam. Mhm. sëñ Tuubaa nee na xale. bu am benn itte bul jàng. yaa ngi sipiyaan laa tastaqilu ani huda bul soxla lu ak njub waaye wa bil ulumi staqilu na nga soxla woo xam-xam waaye fastaqilu na nga soxla woot bil hifzi ci mokkal li ngay jàng waaye wattandi bu nag ma jaari sa saqaawa nga bàyyi bërëbu texeet yi. bàyyi bërëbu texeet yi. waaw looloo waral ndaw ñi nekk Touba. Mhm. kàll macha allah boo leen gisee ci daara yi da leen di ñee ci ni ñuy teel a wattoo alxuraan. Mhm. xale yi à bas la ñuy dal Euh, ci alxuraan ci Touba boo demee gis leen ci daara yeeg yooyu sa xol day sedd. xanaa lool la ñuy jéem a jëmmal. lool la ñuy jëmmal ndax ku jox sa ndaw yàlla. Mm. soo nekkee mag mu la sa mag. dëgg la. sa ndaw boo ko joxee yàlla. waaw sa mag yàlla la koy teel. fa kullu man baadara waxta sigari illa al xudaa. Mm. istaraaxa waxtal kibari. Mm-hmm. boo jëlee sa ndaw jox ko yàlla. Mm. sa mag da ngay féex. dëgg la moo tax ndaw moom ngay defar. tax daa xam ne jamono joo yóbbee sa doom ca daara ja. bu nee bismillahi rahmaani rahim. sa doom yàlla jéggal na ko ndeyam ji ko jur yàlla jéggal ko baayam ji ko jur yàlla jéggal ko sëriñ bi ko jàngal yàlla jéggal ko sëñ Tuubaa ko wax ca Masaalikul Jinaan mm. waaye suma yu basmilu asab yu fii maktabin yaktub loolu aliyu mm. wa walidayhi wa liman yuallimu baraatan min neeri fal tax na mu yóbbu sa doom rek mu jàng bismillahi rahmaani rahim ca daara ja ñu jéggal bàppam jéggal yaayam jéggal sëriñ daara bi jéggal xale bi xanaa li alxuraan rek ko am donc te moo ko jar moo tax sëñ Tuubaa fonk daan defar lal ba daan defar lal ba mu jekk lal ba mu jël alxuraan teg ca kaw lal ba. waaw toog ci suuf yor parfum labin ak sikki di ko sotti ci kaw téere yi naan yaa kitaabal karim yi anta habibi wa qalili wa qablu kuntu tabibi alxuraan lay waxal de. Mm. yaay sama xarit alxuraan yaay sama soppe. sëñ Tuubaa nee na bu feebaree perfusion bi mu jël wér mooy alxuraan bu jàngee alxuraan rek wér wa xibsi mafgari wa jaahi wa hizati mm. uniltu biha kaw nii lana laay za sidqi nee na alxuraan ay kaaraangeem mm. alxuraan lay tiitaroo. waaye nee na lu mu bëgg ci yàlla ci alxuraan la koy wutee. ci alxuraan la koy jaare moom sëñ Tuubaa. muy lu am solo waxambaane bi itam nga ñëwal ma ci nan la war a mel parce que tey waxambaane yaa ngi ci internet yi ñu ngi ŋàññante kenn ku ci nekk yaa ngi laal sa pas-pasu morom ndax ba muy bind téere boobu pour waxambaane est-ce que pour lool la woon wala déet wala dafa war a teg waxambaane bi ci yoon boo xamante ni bu ci tegoo rek tabaarkalla macha allah xolam dina sedd xolu ay mbokkam dina sedd. moo tax boo tax ba demee ci tasawur subaan. Mhm. dani waxambaane bi. Mm. soo bëree bañ am gàcce ci àddina. waaw. Hmm? Mm. nga jiital xam. Mm. doog a jëf. xam doog a jëf. xama ki am xam-xam. Mm-hmm. dana jomba def lu ko yàlla. Mm-hmm. waaye ki xamul. day sañ lu ne. Mm-hmm. moo tax mu ne waxambaane bi bala ngaa jëf jiitalal xam ndax boo xamul jëf yaa ngi mbaa mu sëbitee reeyam boobaa lépp loo jëfi doo xam valeur bi mm-hmm. ndax am dara te xamoo ko ñàkk ko te xam koo gën ndax boo jógee danga nga ko wuti mm-hmm. moo tax mu ni yow waxambaane mi na nga jiital xam-xam mm-hmm. doo ko jëf ndax boo tegee li ngay jëf ci xam-xam jëf ji da lay jariñ doo réer waxambaane yi ñoom leenu jiital xam jëf xam ni ak jëf du sell mukk fekk tegoo ko ci xam dëgg la moo tax yàlla wax ni boo xamul laajal ña xam ñi wax la fas alu ahla zikri in kuntum laa taalamun waaye boo xamee ba noppi nag boobaa na nga jëfee nag li nga xam ndax boo bëggee yàlla. bëgg gi nekk dëgg ci yow. da ngay jëf lim la sant mooy waxambaane bi faaw mu xam ne yàlla bi mu bind jaamu yàlla tax. dëgg la léegi nag sa xam-xam bu bu nee la jaamul yàlla. nga xam ni nga jaamoo yàlla di nga jaamu yàlla. te mooy tootooñ. mooy tootooñ tey dundee saw ñaq. mooy too tooñ dundee saw ñaq waaw waxambaane wu ci tegu dooy yoon ci yoon wi macha allah waaw macha allah mu ngi noonu 88 euh, la 628 14 13 moom la ñuy àndee ak yéen tabarkàlla 18 safar la ñu wax màggal gi ñu jub si ko tabaarkàlla daanaka samedi bi doon bi ci mujj wala beneen bii di ñëw sës rek ci màggal gi loolu moo tax rek euh, émission kër gi lépp ñu jël ko jagleel ko jëmm jooju nga xamante ni moo liggéeyal yàlla ba yàlla gërëm ko ci jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ñuy def mooy dañuy daal di dem Touba fekk ji fa Bekaay Ndiaye ma koy nuyu bu baax di ko jaajëfal ci ànd bi nga xamante ni mi ngi koy ànd ak ñun ci liggéey bi lim ñu jëlaleel Touba ci jumaa ji lan lañ fa bëgg nan lañ war a comporté woo ñu dem seetaani ji ko dellu si waaw Bécaye nii waaje mooy chaque année naan def rek mooy waaj mu njëkk mi avant màggal te mooy defaraat mboolem luy piil wala ventilo wala paratonnerre bi wala lépp loo xam ne nii màggal lu koy soxla ci ay waajtaay bi mu paree ñu waaj waaj ñaareel mooy ñiy siyaari si nag ak ñi jumaa ji di julli si ajjuma yi ak julli juróom ak siyaare yi ñu mën leen taxawlu ba ko ci ne la nga war def nga def ko te mooy wut ay barab jaarukaay yu góor yu jigéen soññ nit ñi tamit ci ñu sàmmonteeg worma ji col gi surtout col gi mu sol bu dee góor mu sol yëre góor yu jot bu dee jigéen mu sol yëre jigéen yu jot fat te nuru la ko yëre col góor bi maana muy sol ay baylaat wala ay sensé wala ay caaya yooyu nga xam ne dafa xew léegi ñu ñaan mboolem ñi jur ñiy seer si jigéen ñi ñu moytu na ko baax a baax ndax loolu bokk ci worma ji tey daganu ci jigéen tamit muy sol colub góor. foo mën di nekk maa ji am na lu lay xool loo xam ne nii loo fi def ci lu mel noonu mënees naa gaaw jël si la fa nga nekk te du am benn jafe-jafe loolu mooy wattaay yi ci topp li nga si mooy ñëwal presse bi ñun tamit soppiku mi wax ne mooy ñi ñëw ngir jël si image wala def si ay plateau wala def si ay lu mel ne wàllu yéete nañ xam ne ñëw bi da ngay dugg ci biir jël carte. wax ni ngay def noo koy defee ak koo koy àndal loolu ñu ci mooy bañ a may accès ku ne mu am droit nekk jumaa ji di wax yoo xam ne nii boo ko ba ci dëgg ci digg ba day wuteeg njàngale mi day wuteeg teggin yi te loolu lépp dafa xew léegi moo tax ñu bëgg nit ñëpp bàyyi xel ne jumaa ji moom baral boo xam ne nii da ko war a jox cër wormaal ko ndax suñu yaakaar àddina ak alxama ko nekk mboolem kuy ziyaare si jëm ci barab mag ba soow ngay jaare muy góor di jigéen mu xaaj ñaari xaaj muy góor rangu góor rangu jigéen bu ci bunt ba ñu séparé ko bu góor duggee ab diir ñu génn dugal ak jigéen ab diir xam ne jaxasoo am ci dugg bi ak ci génn bi incha allah benn jigéen fekkati benn góor ci bi jumaa ji bu nodd dañ tëj ko jël poos ba ñu pare ñu continuer waat incha allah noonu la fa waajal ci mboolem barab jumaa ji yëpp incha allah. waaw màggalu Touba moom saa jublee jubluwee rek dañuy takkaayu takk suñu der génn suñuy néeg génn suñuy ëtt fas yéene nekk rek ci waañ wi liggéey rek togg di yàq di indi fii kër sëñ Touba gi ndax moom la sëñ bu bëgg berneel gan yi boobaak léegi nag ba première safar tàmbaleeg léegi boobaak léegi wàcc ko euh, tegg ko ma sama cin damay togg lu bari di ko fi indi maa ngi nii damaa séddale nii ba pare rek nga door maa woo boobaak léegi nag wax dëgg yàlla ñu ngi ci rek di togg ko a nga xam ne fii nag lañ koy def nag ba màggal gi pare rek façon palaat bu ne danañ ko togg lépp la ñuy togg moom kay dañuy togg rek loo xam ne daal suñ ko joxee gan yi danañ kontaan rek danañ ko togg lépp ngir sëriñ bi rek tax ndax ñun sëñ Touba rek ñu ñor waaw ci waañu la ñuy fanaan ndax dañoo bañ suñuy añ naaje bañ suñu reeri naaje moo tax ci waañu la ñuy fanaan suñu yóbboo reer rek tàmbali waan nañ di xolli loo xam ne suba la jëm pare nañ lépp lépp lépp lépp lépp ma ne la bañ weeru teroo rek lañ pare lépp xam ne pour gan ñi rek ba fi ne nii gan ñi nga xamante ne dañuy ñëw di ziyaare si fi ne berne yeeg yëpp tàmbali na première safar la tàmbali woon pare nañ bu yàgg di xaar suñuy gan fa seen bu dikkee dinañ leen teeru euh, ganale leen ganale gu am solo te xam ne ñun sëñ Touba rek ñu ñor waañu la ñuy fanaan génn nañ suñuy néeg jox leen génn nañ suñu ñun daal maanaam ña nga ca waañu rek fa lañ dëkk. jërëjëf Aristide euh, mi nga xamante ni moo nekk ci réalisation bi ci régi ba maa ngi koy nuyu bu baax di ko kontaane euh, jaajëfal itam Bekaay Ndiaye ci élément bu am solo boobu ci waajtaayu màggal gi génn nañu seeni néeg moom jarul ñu koy wax ku nekk Touba. tabaarkàlla macha allah boo fa demee ci nga ciy xam dara amul benn yoon boo xamante ni di nga gis nit ci biir néegam lu mooy mu am lu mu soxla di ubbi di jël donc euh, mu ngi noonu yàlla nañ ci yegg ak jàmm ak salaam yàlla yàlla sàmm ñëpp yàlla mu yàlla muccal ñëpp ñu dem ci jàmm ak salaam dellu siwaat ci jàmm ak salaam su ko defee lu ñu fa ñaan yàlla rek yàlla na ko yàlla nangu côté comportement itam wax na ko jumaa ji di moytu sinap yeeg yooyu ren jii ñu génne itam jigéen ñi nañu sol yëre jigéen euh, góor ñi sol yëre góor ba tey am liggéey boo xamante ni continuité la maanaam la Cheikhul Khadim jëmm ju tedd ju dooroon macha allah fa tabarakallaa ba léegi ña fa des ñu ngi koy continuer am ay organisation yu bees yu nekk ci biir Touba loolu tam noo ko gisee cheikh bi balaa ñuy duggaat ci Serigne Touba ak màggal gi. xam nga yàlla fawut faluwut. Hmm. yàlla. Hmm. fawut. faluwut faluwut. dëgg la. xam nga nit fekk mënut a dem ba ràññee. Hmm. soirée ak néegu yàlla. faaw nga mën koo ràññee. dëgg la. yi dox ci soirée. Hmm. doxul ci jàkk. déedéet. yi dox ci baar bi doxul ci néegu yàlla. déedéet. ku jëm tuubaa da war a jàpp. Hmm. sol lu yiw hmm. xam ne da ngay jaamu ji yàlla. bisu màggal gi sëñ bi dañu kaay leen santale ma yàlla jàng alxuraan. jàng kaside yi berneel nit ñi. kon foofu ku am yéene bay jóg. da war a dem ngir jaamu ji yàlla. waaye sénégalais nag lu mu dugg dugal ci folklore. lu mu dugg. dugal ci folklore folklore dëgg la. xam nga sëriñ bi doxul ci mode. déedéet sëñ Tuubaa actualité la bu xew te dootu xew yi. nga ne. sëñ Tuubaa doxul ci mode. waaw moom du styliste. styliste yi ñooy créé naan tendance lii bu xew bu ñu ko génnee mu xew. waaw bu yàggee tuut loolu xew ñu xalaat leneen sëñ Tuubaa nag actualité la bu xew te dootul xew yi. boo ko sax da ngay dëkk. waaw moom day actualité bu xew te dootul xew yi moom da ngay ne ci moom ba ko sa bopp. waaw liggéeyal ko. waaw mu ne xool ko nga xool ko. li nga bëgg nga am ko. te ñi gis naa ñi ci tegu dëgg dëgg dëgg ci yoon wi nga xamante ni moom la digle ñi ci tegu dëgg dëgg dëgg dëgg euh, boo leen xoolee rek ràññee leen. waaw xam nga sëñ baa amul morom dëgg la. waaye fexe tànk ginnaaw gi ñu wax. lépp dëgg la. Mm-hmm. sëñ Tuba amul morom dëgg la. Mm-hmm. waaye fexe ba yow nga ñàkk moroom ba ku la gis naw sëñ Tuba du ko ëpp solo. dégguma. sëñ baa amut moroom waaw. xam lu ko ëpp solo. waaw fexe ba yow ku la gis xam yow ñàkkoo moroom xam nga sëñ Tuubaa ñun ñooy ay seetoom ñooy ambassadeur. ñun taalibe yi bu ñu baaxee rek ñëpp wekk sunu sëriñ résultat ab sëriñ mooy taalibe bu baax. loolu am na importance ah. waaw résultat ab sëriñ. mooy nga am taalibe bu baax mooy ressources humaines mooy am taalibe yoo xam ne ku leen gis seen da leen di naw. Mm. mooy yoonu murit mooy ni istarxe di doxee. boo leen gisee ci kuréelu ñi nu mer sol ah baylaat bu yiw sama rakk ji waaye sëñ Diallo sol baylaat bu yiw di jàng xasaay bi <laughs> jël seen addiye di jox sëñ Touba boo leen ne jàkk bëgg a mel ni ñoom mm. mooy modèle lu murit boobu la sëñ Touba bëgg lu tax murit xër ba lu mu liggéey kër sëriñ Touba sëñ Touba xër ci yàlla da cee gis wala lan la déedéet sëñ Touba xër gi mu xër ci yàlla ak bi mm-hmm. la ko yàlla fayee taalibe yu xër ci moom mm-hmm. sëñ Touba moo xër ci yàlla amul ci moom sango nee na lépp lu ma yëngal baa lépp lu ma dalal yàlla la billahi lazi laa ilaha illa huwa ayaati wa mamaati wa arakati ma rasulillahi nee na lu ma yëngu yàlla laa ko yëngalal lépp lu ma dalal yàlla laa ko defal daa jox boppam lépp yàlla bëgg rasulillahi ba lu mu jur tuddee ko sëñ Modou Moustapha sëñ Fallou Cheikh Abdoulaat Cheikh Saliou Cheikh Amadou Mortada lépp mu jur lu mu jur tuux rasulillahi xër ci moom yàlla ne ko dinaa la fayee taalibe yu amul sago ci yaw fii ni murid yi amul sago ci sëñ li tax amul sago nag ci sëñ xam la ko waral mm. tànn gi ba mu def nu ay taalibeem xanaa am gin am sëñ Touba danoo jombu di du mérite di sens dëgg la am sëñ Touba. am sëriñ Touba ci sam réew. sens la. du mérite. déedéet. ndokk ba mu nekkee sénégalais yor der bu ñuul lu ñun ñi mën koo savourer. yàlla mënoon naa def mu nekk nigérien. wala mbaa jamaïcain mbaa. jamaïcain waaye fii la dëkk Kajoor ma nga fan ko denc bawal mooy kan mooy ki tubaab bi yóbbu ba noppi échec mu del si mooy sëñ Touba mooy kan moom noonu yóbbu Mauritanie. bëgg ko faa humilier mu am fa ndam moo nekk njaarim ba nam fa demee Touba musta def lu ab taalibi dégg naan accam suñu sëriñ bi coow li bari na de. Mm. waaye bu gaa yi xamaloon dara suñ Touba duñ ko mën a tegal tuuma wax ko. Mm. na ba faatu zéro faute. sans défaut sans défaut. Mm-hmm. nee na erreur sax mosuma ko def sama dund. est-ce que. <laughs> nazaafatu kulli min al-laxwi tahaaraat wa sunnatuhu insha rabbi ubayyin yàlla sellal léppam ci neen zéro faute. kenn du gis dara looy xebet ci moom ndax léppam da koo jox yàlla moom sëñ Tuubaa loolu la ko yàlla fayee nag tànnal ko taalibe yoo xam ni amul sago ci moom bu sëñ bi nee weex na ñu ni tàll bu ne ñuul na ñu ni kukk bu ne xonq na ñu ni cooy foofu la murid ne 88 le 628 14 13 fa ñu nekk euh, macha allah fa tabarakallahu tout souvent dama koy faral di wax ma naan leen euh, waañu sëñ laat gama yoroon ndeysaan booba jamono euh, melul ni tey te tey gën ndax fekke nañu ko rek dañuy sant bu baax a baax a baax lañ daan jël glace di ko dugal ci suñuy bopp di ko musooroo ndax naaju tàng nekk ca waañ wa kenn du ko def ba pare di ko réccu rawatina koo xamante ni nag yàlla da koo gërëm ak fu mu mënti bokk nag rawatina muy diwaanu Touba googu kon sëñ laat maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar di kontaane it soxna Aida Saliou euh, Aida bu Cheikh Béthio kon maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal jàmm moom tamit gis nañu taxawaayam ci màggal gi ak cant rek la woote kon soxna Aida Diallo bu Cheikh Béthio bu Serigne Saliou Mbacké bu Serigne Touba ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaanal yàlla na ko yàlla defal jàmm da ngaa ne Serigne Touba mi ngi dëkk Kajoor. mu mhm. ngi ñu denc Bawol waaw. juddu balaa bëgg nga ñëwal ma ca. xanaa yor ji ndey joo xam ni. wax kay. ndey jooju. waaw jamono jamono. ba fi may waxee ak yow. waaw jigéen ju gën soxna jaara amul ci àddina. jamonoy soxna jaara. ba fi may waxee yow nii. Mm. jigéen ju mel ni soxna jaara amut. mooy genn jigéen ju am màggal de. waaw am genn màggal gi sax. Mm-hmm. waa ji defar photo soxna jaara bi daa juum ndax moom meer na photo te soxna jaara 33 ans la dund fanweeri at ak ñett. est-ce que du cell nga ga ak na mu daan dudlee alxuraan moo waraloon mu mel noonu. looloo tax mu décoré ko noonu. waaye boo gisee ci photo bi dalaa woon ko am 70 ans. te damaa bëgg a leeral nit ñi man xam ne ki may wax li mbaax yu bari bari bari fanweeri at ak ñett la dund liggéey bi li la dund. ñett mu jëf fii li mu fi jëf. Mm. mokkal fi alxuraan. Mm. peeg téere xam-xam yi. yoroon daara di jàngale. Mm. ba noppi ñu jox ma Mamadou Anta Sali. biñ ko ko joxee mu ñëw fa. ibbi kaamil alxuraan. bi mu ubbee kaam alquran moom soxna jaara yam mhm. ci maa kaana muhammadun aba ahadi min rijaalikum mhm. walakin rasulallaahi wa xaatama nabiin mhm. yàlla daan ne ginnaaw yonent bi ab yonent dootuma ko wàcceeti soxna jaara bu so daan ne kon ma jur fa koo xam ne ku ni rasulillahi ni xaadima rasul est-ce jaara moo ne ginnaaw jurub yonent mënatul ne waaw waaye dinaa fa jur koo xam ne bu nee muhammad ni xaadima rasul mu xas ko xas ko ba noppi jëf ko na biir kër Mamoor Anta Sali Mamoor Anta foofee ca xuru Mbàkke mhm. am na siñu sàkket bi mu doon teel borom këram booba taw bi moo doon wàcc ay une heure du matin soxna Mbayang mhm. une heure matin taw bi wàcc Maamar Anta Sali ni xaar ma wut xeer bu ma gek gek mhm. ma wut bu ma gek ba noppi dugg ci biir néeg bi fàtte soona jaara est-ce que soxna jaara tee siñu sàkket bi di xaar borom kër wut xeer ba fajar gi jot bi Maamar Anta Sali génne ngir jàpp julli suba fekk na soxna jaara jël loxo bi teg ko ba tey ci siñu sàkket bi hmm? borom kër gi ni ko loo fiy def mu ni ko biig yaa ma joxoon digal ma tegal sa loxo te jox góoma ndigal ne ma teggil sa loxo. boobu benn firnde la muy wane ne jigéen dafa war a ndigal. war a wéy ndigal borom këram. taw di wàcc laa taw fanaa ne wàcc ci kaw soxna jaar ba fa yar borom kër gi ne ko looy def fii mu ne ko yaa ma jox ndigal biig ne ma tegal sa loxo te jox góoma ndigal ne ma teggil sa loxo. sos bu raar. damal la. soos bu raar damal la sëñ Tuubaa bu demul woon sax ci géej gi. waaw bu ne la kii mooy soxna jaara bu dee liggéeyam day rek. waaw añu doom li ko ndeyam liggéeyal rek xajul ci réew mi. même bu demul woon géej. même bu demul woon géej te ndeyam di Soxna Jaara. Mm. jëfal na ko lii. Soxna diggante moom Mamar Anta Sali lim jëf daa bari. waaw Mamar Anta taw bi wàcc na. mu bëgg café waaw Soxna Jaara xar gaalam. gaal googu tey boo ko doon xayma da nga koy xayma armoire huit battant booba jamono ab gaal. Mm. Soxna Jaara xar gaal ga jël yére def ko ngeenaay teg ko ca lal ba jël gaal ga daan koy xar boyal ko tàngalal borom këram kafe ngir jëfe ndigalu borom këram kafe gaa ngay law ba léegi de. kafe gi nag moom la yàlla barkeel ba tey ngir soxna Jaara lim jëfal laa la wax Maam Mor Anta Sali. Mm-hmm. Mm-hmm. kon sëñ Tuubaa moom waajuram wu jigéen yàlla da ko tànn. waaye Maam Mor Anta Sali mi ko jur la. ñëwal ma ci. nekk ab xaadi daan atte ci lislaam waaw nekkoon doomu soxna su yiw. Mm. su bëgg lu baax. Mm. teel a xam sëñ Tuubaa doomam ji mooy kan. waaw ndax sëñ Tuubaa Cheikh Omar Foutiyou waxoon na Maam Mor Anta Sali ne ko di nga am doom joo xam ni mooy doon xaadim mm. a te Cheikh Omar Foutiyou Tall ko waxoon na ko te boobu sëñ Tuubaa dikkagul jamono. est-ce que boo demee ca Njuuj Njaaj ga sëñ Musaa Ka bind da nga ko ca fekk. Mm-hmm. nga xam ni kon moom da ko tànnal ab baay bu baax tànnal ko ndey ju baax sëñ Tuubaa nag nekk ci diggante bi gane jamono waajuram wu jigéen jëfal ko waajuram wu góor di ma Mor Anta sa jëfal ko. ca Mbàkke Kajoor mm-hmm. waaye ca Mbàkke Kajoor googu foofu la yoonu murid tàmbalee. ci foofu la ko yàlla ne amal am nga ndigal woote yoonu murid. Mm-hmm. xam nga yoonu mu yàlla ne sëñ Tuubaa woote ko amarani rabbi bi an usarriha bi annani malaazun wa mafzaun fa man arada al xayra fii kiltiya daarayni falyalus bi man lu ma wax Sëñ Tuubaa damay xam ko bind looloo tax ma indi la tey yàllaa ma digal ni ma mm. naa leen yëwénal yéen jaam ñi ni man Sëñ Tuubaa muccukaay laa mm-hmm. rawukaay laa mm. ku bëgg am jàmmi àddina jàmmi alaaxira jébbalul ci man rek ci man jox ma sa bopp bàyyi maag sa bopp lu ma la digal nga def lu ma la tere nga ba loolee ca Mbàkke Kajoor la xewee sëñ Adama Gueye njëkk a jébbalu ci yoonu Murit. Mm-hmm. yoonu Murit tàmbale. sëñ Adama Gueye. jëkk a jébbalu maami Mourtada doon wax léegi. sëñ Adama Gueye njëkk a jébbalu. waaye benn mbir mu doy waar nag. Mm-hmm. yàlla ku mu njëkk bind. maam Adama maam Adama. ku njëkk gëm. Cheikh Adama Gueye. benn tombé ngoog de. Hmm? waaw dama la. yàlla maam Adama la njëkk a bind. waaw Serigne Touba. la njëkk am ci taalibe. Cheikh Adama nu mu tudd maam Adama lañ ko tuddee. Mhm. yàlla kan la ne mooy xaritam. yonent yàlla Ibrahima. Ibrahima wa taxasallahu Ibrahima xalilan. waaw Serigne Touba kan mooy xaritam Cheikh Ibrahima Fall. nu mu tudd Cheikh Ibrahima. maami maam Sey Fall. waaw. ma ca Italie. sëñ <laughs> Touba du sunu borom de sëñ Mourou Kara wax na ko de sëñ ah. du yàlla de waaye kër yàlla sëñ Touba saal la fa am yoru fa pentre kër yàlla kër yàlla. Mm. am na fa saal yoru fa pentre. yaakaar naa ni euh, mbokk yi gis ngeen ko waxtaan wi am na solo tabaarkàlla macha allah lépp ñu jël ko rek euh, jamonoy màggal la ñu toll 18 safar macha allah fa tabaarkàllaahu ñu koy safar rek euh, sur la 2 gis ngeen programme bi ni mu tàmbalee changé ndànk-ndànk ndax li ko waral nag du dara lu dul rek. Euh, wane ne télévision 2STV télévision ñëpp la macha allah kenn ku ci am événement rek dañu koy ànd ak yow ba mu jeex tàkk. Euh, may nuyu di ziar bu baax a baax a baax nag sama mag ja nga xamante ni kenn gënu koo doon taalibe Momar Thiam maa ngi koy nuyu bu baax rakk ji jëmb Thiam macha allah Fat Thiam ñoom ñëpp ñu ngi waajal jëm Touba maa ngi leen di bu baax a baax di leen kontaane di leen ñaanal jàmm waaye kenn du nday Fall démb nday safar nga démb ba mu neex euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yaakaar naa ni màggal gi. Euh, daanaka yegsi na ngeen nekk ci ay waajtaay nekk ci ay bernde ak yooyu maa ngi koy wax sànq toujours bernde yi dañ koy wax ndax sama classe gi moom lekk rek lañ moo leen yóbbu Tuubaa man moo ku ma joxati fi mu ne waañ ba dal na la <laughs> ndax du ci mën dara mais euh, ci wàllu bernde yooyu itam dafa am noo xamante ni nit kii dem Tuubaa noonu la war a comporté woo parce que nag euh, Cheikh Sarr maa ngi koy nuyu au passage mi ngi nekk Sen TV mi ngi koy wax barki démb dem màggali Tuubaa gàddu lu dooni bagage ni nga ko waxee ma mag euh, Touba du du baar ba xaw ma néegu yàlla xaw ma noo ko waxee sànq. dafa am lu la fa yóbbu nga war koo matale waaye itam noppalil ñi ngay fekk ji tam daf ci am solo. foofa la ma la ci wax soxna Mbaye rek. waaw mooy Sëñ Touba waxul waa Touba. Mm. berndeel leen gan yi. ah Sëñ Touba lool de dañu koo xam ne sama mbégte sa mbégte la santale ma yàlla. kuy dem Touba da ngaa war a gàddu mbuus bu dee sa doole ci mbuus la toll nga yóbbaale mbuus. ba sa doole toll ci nag booy dem màggal yóbbaale nag Touba. Mm. bu sa doole tolle ci xar yóbbaaleel xar mm. sëñ Tuubaa néewul waa Tuubaa berndeel leen gan yi déedéet daf ne sant la leen ma yàlla dañu sant la leen ma yàlla ginnaaw suñ fàllu nag nee na ñëw leen defee si ko Tuubaa kuy dem Tuubaa fa ngay dal yóbbaaleel na sa doole toll waaye dal bi daa neex te joxe woo un franc <laughs> sëñ laaj dina ma rey bi daa te yow leer na ne sa juróomi dërëm duggul ci dal bi kon liñ naan boo déggee ñu naan kër gee neex rek boobu daa fekk jógewul sa poos waa kay bu jógee sa poos moom léegi nga xam tey naqari waaye kër moo tax moo tax képp koo xam ne fa ngay daal fu ne waaw na sa doole toll bu dee oto nga muy dégg mooy yoon mooy yoonu màggal gi am na ku nekk ci ligne bi ñu jël ko euh, macha allah am na baree baree bari ñoom la ñuy def waaye man nag man damay woo soxna ña nga ne ko yónnee ma sama mbubb ndax ci nuróole yi ci laa bokk mbokk allo oui <laughs> allo soxna si allo na nga def. maa ngi fi alhamdulilah. oui yàmbaluma. ah. ma ne. waaw. boo demee si magal ji. waaw. nga ñaanal ma pour sama doom bi. sa doom bi lu ko lu ko jot. hein. sa doom bi lu ko jot. xamuloo ma. yow la kan. dinaa la woote après boo demee rek nga ñaanal ma pour sama doom yi. teemaa takk samay verre ndax ma xàmmee la. hein. ma ne teemaa takk li ne di ndax ma xàmmee la. ma ne. ah boo demee rek nga ñaanal ma na la woote si ngoon bi. incha allah incha merci. yàlla na la yàlla defal li nga bëgg sa doom ñu ñaan ko en direct mbokk yëpp ñaanal ko moo xam ni mu bëgg ci doomam yàlla na ko suñu borom defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko kontaane di ko jaajëfal euh, euh, maa ngi nuyu bu baax Ndeye Aram Mbodj mu nga fële ca diwaanu Espagne. Euh, Madrid maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax di kontaan ci moom sama sœur boobu Ndeye Aram Mbodj lu yàgg dëgg la euh, te it baax rek ngay mën a def ndax kuy sa baay ñu ne monsieur Mbodj koo bokkal ñu ne na Nafi Mbodj jàngal soxna Mbayang macha allah noonu rek ngay mën a mel kon maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax euh, macha allah Ndeye Aram mbuus sama classe gi moom dañu taxet de. waaw man moom bu may jógee tubaat bu may ñëw damay indaale. waaw man man soxna ñanga dina ma jox bu ñu togg dina ma jox bu ñu toggul. dina ma jox mbubu dina ma jox lépp ma buub toog ñëw tukki ndekete damaa war a participer. ak itam ñi nga xamante ni ñoo nekk bitim réew tam te nga xamante ni mënuñoo màggal si màggal fu ko waay mën a defee baax na. màggal fu ko waay mën a defee baax na. waaw waaye ku mën a dagg bee ñëw Touba rek mooy ndigal li sëñ Fallou moo ne koy defee Touba. d'accord. sëñ Touba nag dañ fu waay nekk mën na ko faa defee kon yow même ngànt ba mënoo dikk. waaw ngànt nga am. waaye ba sëñ Fallou waxee te doomu sëñ Touba la rek borom di ndek xayra bu nee ñëw leen defee si ko Touba nag kàddu sëñ Touba nga koy jàppee loolu sew sew bu doy waar la te gars duñ ko ba xel ma sëñ Touba moo sëñ Fallou ne defee nañ ko Touba rek waxi doomu sëñ Touba waxi sëñ Touba la tey jii bu sëñ Mountakha waxee sëñ Touba nu wax ndax moo fi sëñ Touba bu ne woon toog leen kenn ku nekk defee ko sa kër defee ko sa kër nga daal di toog fii ni ñun sunum xel mooy xelum sëñ Mountakha mu xalaat moom mooy sunu xalaat ñun amuñu xalaat xalaatu sëñ Mountakha sunu xalaat mais lu waral murit di demee noonu carrément ak sëriñam léeg nga gis kuy digat sëriñam sëriñam wax bay pare mu ne moom sama sëriñ wax na ko waa mais mais murit moom <laughs> bu nee nii rek taaliba ndigal daal comme ni ñu ubbee sànq lu waral loolu ci yéen. xam nga lu ko waral daa bokk ci sart murit. Hmm. ñeent yi ci bokk. mooy wa tarkul ixtiraad. waaw mooy taalibe sëñ te wax ne sëñ bi li nga wax waroo ko wax. waaw ñoo sunu yoon day bañ sëñ bi waroo wax lii. Hmm. sañ bi waroo def lii. Hmm. ñun sëñ bee nii lijjanti waaye ñun duñ ko lijjanti. ku sant Mbàkke koo mën a doon ab taalibe warul laa lijjanti ndax ñoom ñoo nii lijjanti. ak nu mu mën a toll. waaw ñun ñun dañ ñun sëriñ seen i lijjanti waaye ñun nekkuñu taalibe bu lijjanti sëriñ ñun suñu sëriñ jox addiya ak warmaal loolu lañ seq ak moom. macha allah yaakaar naa ni am na solo te temps baa ngi jeex te dama bëggoon euh, mu ñëwal ñu tuuti ci dem ga euh, dem gi nga xamante ni euh, maanaam bi ñu déggee ne xaadim rasul dem na ci wetu sunu borom bi mission mat na loolu jamono boobu murid yi nuñ ko dunde kanu mii noonu kan nga xam ne moom lañ daan wéttalikoo mm. koo xam ne boo ko musaana gis boo delloo sa kër sa péru bët bii jëmm ja dafay des ba tey nga xëy bis gisatoo ko mm. mag ñëpp wéet mm. mag ñëpp jaaxle ndax ginnaaw Serigne Touba ku àndoon na Serigne Touba ku ne keneen koo gisati da ko war Mm-hmm. waaye dootoo gis ku mel ne sëñ Touba. ndax mag ñi lan doon yëg ci sëñ Touba matuñ koo yëg fenn fu dul sëñ Touba. Mm-hmm. kanu mii noonu nag xëy bis. Mm-hmm. sëñ Modou Safa jëlee ko njaareem. war koo yóbbu Touba. mag ñëpp nag jaaxle. ndeysaan waaye boobu sëñ Touba waajal na taawam bi ma taaw. mooy sëriñ Modou Moustapha. mooy sëriñ Modou moom mi nga xam ne maami sëñ Mbacke soxna loo maami sëñ Mbacke soxna loo maami sëriñ Bas bu sëñ Mbacke soxna loo maami sëñ Xaadim Naar ndeysaan sëñ Mbacke soxna loo ndeysaan seen maam sëñ Modou Moustapha ak ay jàmbaar ci liggéey sëñ Touba ki est-ce que da nga ko dul waxtaane lu bari nag hmm. waaye sëñ Modou Moustapha waaw ku doy ni sëñ Touba nga wuutu ko ci jamono ñi yaakaaroon sëñ tubaa raam sukk seen kanam hmm. nga leen di digal leen sëñ Touba doon digal ñu nangul la kooku sëñ Modou Moustapha fexe ba jumaay tuubaa ji sëñ Touba mébétoon mm. te booba tubaab bi teg nañ ci xolal gàllankoor bu ne ngir bañ raay bi am te raay bi bu amul matériel bi du mën a dem Touba nga fexe ba raay bi dem mu fexe ba jëlee raay njaareem yóbbu ko Touba yóbbu ko Touba ngir matériel yi nga xam ne xam nga raay bi lu ko taxoon a jóg matériel jumaa ji ndax ma ne su ko woon yéen tubaab bi dem nañ ba gàllankoor ne ko main d'œuvre bi ñi liggéey hmm. da ngeen di fay ñu doog a liggéey xam na murit dañoo yàgg ci xër de xam na murit def mu liggéey ba wàcc si mënu saa fay leen xam na ñu def hmm. ñoom ñëppay defaat beneen sàppe ñëw joxewaat ko addiya <laughs> salaire bi leen di jox ci raay bi bu ne buñu wàccee ban fay leen ndax booba tubaab bi day gàllankoor bañ raay bi am mu daan ñi ngi xëy dañ leen di fay waaye buñ leen fayee ban wàcc ñoom ñooy defaat sàppe joxewaat addiya li ñu liggéey baraay bi taxaw baraay bi taxaw kooku sëñ Modou Moustapha nga xam ni toog na ba ci yàgg sëñ Cheikh Mbacke ne fa am wutal ko docteur ni docteur xoolal sëñ bi lan moo ko jot mm. docteur bi ni ko dara jàpp ko ñàkk nelaw rek mu ne ko doy ni sëñ Tuubaa ku koy wuti jamonoy nelaw ba doyal ko sëñ Modou Moustapha Mbacke taawu seexuna taawu seexul xaddim googu mm-hmm. jóg nag bàyyi fi sëñ Fallou sëñ Fallou mi ni kaay leen màggal si Touba waaw boo ne ko foo ganee jamono alxuraan wax la ko wallahu yaddu ila daari salaam mm. sëñ Fallou boo nekk lu sa bàyyi tudd alquran wax la ko wees qaala Isa bnu Maryama bani israila inni rasulillahi ilaykum musaddiqan mm. limaa bayna yadayya mina tawraat wa mubashiran bi rasulin yaati ismu ahmadu bàyyi sëñ Fallou ahmadu bamba la tudd boo nekk lu yaay tudd alquran wax la ko moom sëñ Fallou mm. wa qulnaa yaa aadama uskun anta wa zawjuka janna yàlla moo ne maam aadama dëkkal ci àjjana yaag suñu maam Hawa mm. waajur sëñ Fallou soxna Awa Buso

génne àddina mm. boo ne ko noo tudd mu ne laaj ko alxuraan qul innal fadla bi yadillah yuuti man yasa waa ja daa xool sëñ fàllu ni ko bëgg gi ma la bëgg lu ma ci góobee gar ko sëñ fàllu ni ko ku ma bëgg doo góob te doo gar te ku laax nga laax sëñ fàlloo ngoog magu Cheikh Abdou Lahat Cheikh Abdou Lahat Mbàkke mi nga xam ne mm. danoon liggéey sëñ Tuubaa gi sa bakkal laa gar mm. Cheikh Abdou Lahat taqdimuhu jamula waxta sawulaaw bi fadli si kamula Cheikh Abdou Lahat Mbàkke borom ba mu tabaxal sëñ Tuubaa mm-hmm. borom kër mag moom kër mag moom Cheikh Abdou laat autoroute de Cheikh Ablaat mhm. Cheikh Ablaat mi nga xam ni moo ni gëm ak wóolu ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek lañ koy def Cheikh Ablaat Cheikh Ablaat nee na gëm mhm. ak wóolu ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek lañ koy def Cheikh Ablaat Mbàkke mhm. gëm sëñ Tuubaa lool jeex ci moom tàkk te sëñ Ablaat bi mu ganee jamono sëñ Tuubaa daa ci moom yaakaar waaye Cheikh ku ne xam ne tasul yaakaar yi sëñ Tuubaa Cheikh Abdou Khadre Mbacke dikk. waaw Cheikh Abdou Khadre Mbacke bi mu ganee jamono. bàyyi maam Thierno borom Daaru Moxti la Sëñ Tuubaa ni mm. gan gi dikk jamono. Mm. aller ak retour nga koy tudd. Mm. koo dajeel yàpp yaram aram na sawara Cheikh Abdou Khadre. mu ganee jamono. Sëñ Tuubaa moo ni maam Thierno gan gi ñëw jamono. aller retour ngay dem di ko tuddee ak dellusi koo dajeel yàpp yaram aram na sawara. ñu ñëw nag ci Serigne Saliou Mbacke. xiyaasul mm-hmm. baraaya bu ñu génnee ci jaam ñi sëñ Saaliw Mbàkke sëñ Ablaay Jaxate nee na mm. ko jamono teg moom bëgg dem àjjana bañ dem àjjana sëriñ Saaliw nu baahi bihi fil ilmi wal adli wa tuqaa mooy kani ndamoo ca xam-xam di ko ndamoo ca maandu di ko ndamoo ci ragal yàlla kani ku dul yàlla mi sàkk jaam ñi ëppoo ma yërmande ci jaam ñi koo koy sëriñ Saaliw dagg xel kom ñëpp di fa tur seen ñaq ku fa mm. tur sa ñaq sa yàpp aram sawara koo koy borom xel kom in fatakal badru aw uhdun kaza xatafan fan hat li xel kooma innal kazo xel kooma daari asata wa dax amwaala wa dax kasala xayru mataaxin wa xayru amwaali xel kooma wa ahlul mbakki wa ahlul musóobi yu naqaan wa xubaraaw fi sonraay xel kooma laa yam na an naka boodun an mazaari xel kooma innal murida man yam si li xel kooma sëriñ Saaliw ngoog daan ñu jox nag ki nga xam ne mooy Cheikh Mohamad Lamine Baara Cheikh Mohamad Lamine Baara mi xam ne mooy sët bi njëkk doon sëñ Touba boole ñaari xilaafa hmm. doon sa baay doon sa maam hmm. sëriñ Baara daan damaa bëgg jumaay Touba mel ni Madinatu Munawara ndax sëñ Touba ko ñaanoon yàlla taman naa ne ilahi maskani Touba abat misla ismaa bi jaay xayri man abat koo gërëm hmm. ànd Baara mu jox sëñ Sidi Moxtaar Mbacke borom kër ngaan waaw guy mbindi Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne moo toog ci jal bi daal di bëgg damaa dégg tijaan ak murit ak laayeen ak xaadir l'islam rek laa bëgg a dégg Cheikh Sidi Mokhtar hmm. ka xam ne bu jëf jabaree Cheikh Sidi Mokhtar la su wax jabaree du Cheikh Sidi jëf rek la ma ne doon xalil suñ tubaab ne joxañ naa la Cheikh Bass Abdou Khadre hmm. lu mu wax maa ko wax lu mu jëf maa ko jëf ñu noppee gis suñ Sidi Mokhtar nag Cheikh Mountakha Mbacké Cheikh Mountakha mi nga xam ne nag tey moo daan toppee tey moom nan topp sëñ Muntaxa Mbàkke mm. kan daan topp tey moom tey jii moom mooy topp tey jii moom nani topp mm. topp na sëñ Fallu ba mu ngërëmam waaw topp na Cheikh Blaat ba mu ngërëmam topp Serigne Saliou Mbacke mm. Serigne Saliou Mbacke moo ne ko julleel sëñ ki nga xam ne mooy sëñ Mourtada te balaa yàgg nga defal ma ko moom sëñ Mountakha moo taxaw sëñ Mourtada taxaw Serigne Saliou Mbacke kooku mooy sëñ Mountakha kooku jël 112 millions jox ko Cheikh Mamadou Lamine Bara addi sëñ Touba takat ñoom ñaar ñoo bokk sëñ Touba Cheikh Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke jamono ji may waxe yow nii mi ngi liggéey université 37 milliards te yàqul dara ci 200 millions mbënd mi. déedéet. 200 millions corona gi ak yi muy def ci suuf. yàqul dara ci 50 millions yi mu joxe keroog ci taw bi. ma mu joxe yàqul dara ci 50 millions yi mu joxe ci manifestation yi. te li yi ma lim nii yëpp Sëriñ Mountakha ko joxe ci diggante bi. nee naa la mi ngi ci projet 37 milliards di ko liggéey. soxna Bali soxna kooku mooy Cheikh Mamadou mooy ki nga xam ni mooy xalifa Sëriñ Tuubaa. wàññeeku ni Baay Faal bu dëggal yaa ma gënal sama daan ni yàlla su borom su ma ko ñaanee ci xaside yi dana ma may ñu yendoo jàng xasaay ñu xëy bët set booba toog nañ lu mat 20 jours gisuñu taw waaye ban jàngee def journée xaside ba bët set ñu xëy Sénégal yëpp inondé sëñ mu taxaa ko ñaan. corona bi it wàññeeku. corona bi mu taxaa yàllaa farak wax ko ca kaw bi wàññeeku. corona bi farak moom temps ba jeex na tàkk <laughs> maa ngi nuyu bu baax a baax soxnaam euh, soxna baal yi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko ñaanal jàmm euh, na mu toogee ca wetu sëriñam boobu am na solo lu ko war ci cadre jigéen ñi dana ko def te noonu lay defee ci social moom itamit euh, macha allah fa tabaarakallaahu te kenn du ko yëg kon ñu ngi koy nuyu di nuyu bu baax a baax soxna Fatou Géwal Diouf xam naa ni jamono bii moom jot jafe na ko lool lool waaye kontaan na ci waxtaan wi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko kontaane di kontaane murit yëpp nag te xam ni ñoom ñëpp seen xale gi ci Touba ñi nga xamante ni yàlla may na leen ko ñoom ñëpp itam seen xel ngi ci suqali seen kër sëriñ yàlla leen ko yàlla gën a defal rawatina ni ma ko waxee sama rakk jooju di sëñ Diallo euh, vieux Diallo maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal jàmm yow xam nga man xam naa jëmb xam na yàlla xam na yàlla yàlla defar say mbir ndax nag mënoon ngaa bokk ak man ba pare nag te xool ma fi mu nekk nii ba mu neex la rek nga ne matu koo jox de am na ko maa ngi lay ñaanal jàmm di ko ñaanal Momar Thiam sama mag jooju yàlla ko yàlla suturaal may ko wér may ko wér le mébitam yàlla na ko yàlla sottal sottal bu jëmb Thiam macha allah daal murid yëpp daal maa ngi leen di nuyu bu ma toogee fii di lim damay dem damay jum at euh, bu beneen yoonee. Mhm. neel neel kii ab Mbaye. waaw nee ko mën naa toog dégg <laughs> nee ko mën naa toog ab Abdoulaye mën ngaa toog beneen yoon. ma bàyyi la nga tàggoog mbokki téléspectateurs yi su ko defee rek euh, ñu daal di euh, tàggoo joxante rendez-vous beneen yoon Abdoulaye si sët la ci Seydil xaaji malik ma nga ci waawan émission bi passé la ma envoyé message bi itam mu ngi koy def mi ngi toog di ñu suivre maa ngi koy nuyu bu baax di ko kontaane yàlla la yàlla dëgëral Euh, relation bi dox diggante Seydi Hadji Malick ak Khadim Rassoul mhm. kii wax na ko du Real Barça te it loolu ngeen di doxal kon maa lay nuyu bu baax a baax Abdoulaye Sy di la ziar di kontaane képp koo xamante ni yaa nga ciyaawoon ay ca euh, ma la nga tàggoog mbokk yi jërëjëf soxna Mbayang mhm. xanaa tàggoo bi mooy di nuyu sëñ Abdoulahan Mbaye mi nga daaneel sa kàddu waaw Abdoulahan Mbaye su ma fi toogee li ma fi waxtaan lépp Abdoulahan Mbaye laa ko defal mhm. di di sama rakk di sama turandoo di sama xarit donc la bëgg a jot 77 03 04. waaw mooy numéro Cheikh Abdoulahat Aw. Cheikh Abdoulahat Aw. waaw 77 sa numéro 77. 832 832. 03 04 waaw 832 03 04 77 def na ni loolu yomb na. 832 03 04 mooy numéro képp ku ko bëgg a jot ci safar gi ci waxtaan yu mel nii macha allah fa tabaarakallaahu mi ngi ciy def yu am solo lan ngay tàggoog mbokki téléspectateurs yi. xanaa sant Sèye Lahad Mbaye moom mi nga xam ne su ma fi moom laa fi teewaay. damaa xulóog moom de. waaye yéen ñaar sa dooma sa diggante moom kenn du ci dugg. dama ko ndax xam naa ne yaakaar naa ku dugg seen diggante moo cay des. waaye moom laa fi teewal maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér. Mm. di nuyu sëñ Bamba Ndiaye. waaw waaw mu sëñ Saliou ak sëñ Abdou Lahad Sène. Mm-hmm. Mbaye Ndiaye nekk Tiwaawan. Mm-hmm. di saa mag di taalibe si Mourtala Juma Moussa Fallou. Mbaye Ndiaye moom nee na sama essence bu màggal Touba moo ma ko jox addee sëñ Touba yebal naa la ci Ablaye Ndiaye ngal gu ma ngay toj ci waawoon waaw nit ku baax la tabaarkàlla macha allah boo def ko yar ak teggin nag wéral cëram wallahi lu mu yor lu ne sama xarit la lu mu yor lu ne rek Tiwaawan na ko ñor Tiwaawan na ko ñor yàlla na ko yàlla jàppale Ablaye Ndiaye ngal gu ñu ngi koy ziar waaye di nuyu jaañ ci mbeng moom it maire ba fa nekk ci mbeng di ko jox wàccuwaayam ndax man ñëpp ma bokk ak soxnaam ak soxnaam soxnaam madame Mbeng te nekk surtout madame Faye Sall ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu nga xam te ni ci lu rafet lay dox ñoom ñëpp seen wàccuwaay gis nga ñun ñii média ak ñun ñii ñun ñëpp ñu bokk ah. ñëpp ñu bokk de waaye nag euh, tàgge boo gis dafa am jàppal ma diw wallaay dëgg la moo tax maa moo tax maa ngi leen di ziar ñoom ñëpp <laughs> waaye di nuyu baax di ziar ndeysaan waa Tiwaawan yëpp jël nuyoo bi teg ko ci loxo soxna maam Faati Mbàkke mm, mm. ak sëñ maam Xaadi Mbàkke moom maam Ceerno mm. nuyu sëñ Gédé Mbàkke moom it di ko jox Baara Mbàkke xalifa sëñ Aafiya mu sëriñ Fàllu mi ngi woo ñëpp ndindi Aafiya fa nga xam ne mooy péncu sëñ Aafiya fa jàkk jane Baara mooy xalifa sëñ Aafiya mi ngi woo ñëpp ndindi Aafiya yàlla fi yàgg loolu tamit wér ca màggal ga sëñ Masamba Sarr kennal sëñ Touba moom it mi ngi woo ñëpp ca màggal ga Touba Aliya mm. di ko ñaanal gudd fan ak wér sëñ Massamba Sarr ku gëm sëñ Touba la am taxawaay bu rafet ca Gàmbi ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér bu baax a baax ci disponibilité bi na lool yéen a ngi ci safar waaye da bàyyi lépp daw ñëw ndax euh, bëgg plateau bi am ñu ngi lay jaajëfal may jaajëfal bu baax a baax sama alaw Dakar bi nag nga xamante ni Touba la nekk euh, Touba Daaru Marnaan Ibrahima Dieng lañ koy wax maa koy nuyu di ko ziar di ziar koo xamante ni kenn la ci man muy soxna Nayda Mbakke Euh, di euh, sët ci Serigne Modou Moustapha boobu ngay wax. ak doomam euh, soxna maam Bousso maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ziar soxna maam Fatma Mbacke maa ngi koy nuyu moom itamit soxna faat Fatma yi tam di doom ci Serigne fàllu Mbacke ñu ngi koy nuyu bu baax a baax moom itam di ko ziar waaye soxna faat Fatma di doom ci mère Nayda yàlla na ko yàlla defal jàmm defal jàmm soxna maam bu Bousso njaboot gi yëpp yàlla na leen yàlla defal jàmm maa ngi sant bu baax di gërëm ñëpp waaye nag ni ma ko waxee sànq rek tàggee boo gis dafa am jàppal ma man dama bëgg sax léegi ñuy wax Mbaye ak Moustapha Diop tabaarkàlla macha allah yàlla na jàmmam yàgg ndax euh, koo xamante ne dalaa defal loo mënul loo mënul wala lu sa entourage mënul mu defal la ko te jëmmi yàlla rek a tax gisoo ko déggoo ko yaakaar naa ni kooku doo ko fàtte mukk te it nag mu mënee seqib tànk sunu borom la de parce que mooy atte wér waaye nag da cee dugal loxoom ba yàlla taqal ko ci rip kon Moustapha Diop yàlla boo sémb loo xamante ni dootul yegg yàlla sa jàmm yàgg yàgg sa soxna si nga xamante ni moom a bàyyeeg yow muy bintu Rasul Ndiaye ci barke màggal gi yàlla yàlla defar seen i mbir sama ndey ja ci àllaaxira nag bi ñu màggalee ba mu am juróomi fan ci la génn àddina mm-hmm. maa ngi sàkku ci képp koo xamante ni dem nga Touba nga ñaanalal ma ko yàlla njëggalal sunu borom mook sama baay ba te li mu liggéey ci sama kër baay yàlla na ñuy yokk fekk fi ñu nekk ndax nag sant nañ ko bu baax ti gaala jaala moom jay la waa ni ma tabara yaasin borom mag a neex liggéeyoo fi dara loo xamante ni lu ñaaw la ba ni nga demee ginnaaw màggal gi kon yàlla na àllaxira doon sa noflaay defal ko Pape Moussa Dieng di sama ndijaay ji fi bàyyi koo semaine bee passé ñoom ñaar ñu bokk ndey ak baay yàlla def àjjana doon seen noflaay ak mboolem jullit mbokk yi jàmm ak jàmm maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp gërëm ki nga xamante ni mooy Pape Gueye 130 28 03 daaw la ñawoon ñaw bi macha allah baal leen ma ko rek 77. Euh, 130 28 03 defe naa noonu mooy numéro moom Pape Gueye mu nga foofu ci diwaanu Pikine may gërëm bu baax ki ma joxoon tisi bi itam di euh, Adja Dieynaba Fall gaynde ak wàllo gi nga xamante ni moom tamit du gis waaye bu tayee mu ne paquet bi Eva ko moom bi Mami ko moom bi mbayee nga ko moom te musuma teganteeg moom bët kon yaay Dieynaba Fall yàlla na sa jàmm yàgg ci barke màggal gi nga xamante ni moom la ñu nekk équipe technique bi yëpp jàmm ak jàmm ci yéen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu fi amaanillah jaa ngeen jëf